الجهر الحمد لله على كون mbokk mi laaj lan mooy naafila naafila mooy lii tege ci yu baax yi teg ci ginnaaw farata yi wala moom ci gàttal rek mooy jëpp jëf yu baax yoo xam ne yàlla bëgg na ko am nay xeet nag yu bari julli am nay naafila ndax lu dul farata yi julli juróom yeneen xeeti julli ngay yi ñuy def yépp naafila lañ koy tudde masalan ñaari rakk yi ngay jullee fajar doora julli ñaari rakk yi suba ñaari rakk yu naafil la ñaari rakk yi njëkk julli njëkk tusbaar wala ñeent rakk naafil la ñaar rakka wala ñeenti njëkk takkusaan naafila ñaar rakka ba juróom-benn rakka ginnaaw timis naafila la ginnaaw gee ñaar rakka naafila la safa wiitar naafila la waaye ndax yàlla xëy na bu dee laaj naafila ci jamono yi naafilay weeru koor ko tax di wax naafilay weeru koor it ñu ko tuddee ko salaatu tarawih wala qiyaamul layli loolu it naafila la naafila it am na ci farata yi yépp maanaam julli mooy yooyu ma la wax ay naafilaam waaye ci koor naafila yi eh, koor mooy koori ngàtt ngay woor bisub tam xarit woor bisub arafa ak woor ci weer wu ne ñetti fan xeet yooyu moo di naafila boo demee ci asaka it am nay naafila ndax asaka moom farata la ko am loo war a génne asaka danga ko war a génne dafa war ci yow waaye jëf yu baax yi ngay def ci wàllu joxe yépp te yàlla rekk tax looy naafila la ba ci lii ñuy def jamono yii di dimbale ñi nga xam ne dañoo yitte woon dimbal ndax euh, mbas mi looy naafil la ndax doonu loo xam ne euh, day waru garu kenn waaye nit ki da def ci coobareem ngir yàlla ngir dimbale mbokkum jullitam loolu itam naafila la naafila nag lu ama am solo la ndax yonent bi bu dee ci naafile weeru koor wi moom yonent boo waxoon ne képp koo xam ne naafile nga weeru koor te ngir yàlla rekk a tax yàlla rek a tax sàkku tuyaaba rek a tax daañu la jéggal sa bakkaar yu njëkk yépp maanaam sa bakkaar yépp yàlla dana la ko jéggal kon loolu doy na ci mbaax ndax yàlla jéggale say bakkaar yaakaar naa ne moom la jullit bépp luy sàkku ndax ku mu ba say mooy ku muy yërëm ëllëg ku muy tàbbal àjjana ëllëg kon loolu mooy li ci wàllu naafila ak weeru koor bu ko defee boo koy def nag dangay ngay nekk ba julli gee ba noppi door a naafila mën nga koo def fukki rakk ak benn ndax am na xadis bu ñëw ne yonente bi fukki rakk ak benn la am na xadis bu ko dëkk bu ko indi waaye taxul ñu tënk ko foofu ci ku mën a def lu yees loolu it naafila nga ku mën a def ñaari rakk rek naafil la waaye boo defee lu ëpp it fukki rakk ak benn it ba tey baax na tënkuñ ko defe ko ci jumaa ji it nekku ci nekku ci lu munta ñàkk ndax imaamu Maalik sax ba bëggoon na naka jëkk boo doonte jàkk yaa ngi ubbi it na am ñu koy def ci kër yi maanaam bu borom kër gi demee ci jumaa ji ñu bañ a neenal jumaa ji waaye sopp na lool ak njaboot gi di def naafilay weeru koor ci biir kër gi ak yeneen naafila sax ngir kër gi it am wàllam ci julli waaw bu dee ab taali bi moom sëñ Tuubaa soññ na ci nee na del dundal waxtu yi yépp ci naafila saa yoo xamante ne bii nar ngaa toog defoo dara au lieu que ngay rey temps bi ci leneen nga rey ko ci temps bi ci ay naafila ci def lu baax naafila yi ginnaaw boo defee farate ba noppi maanaam boo julee farata ba noppi nar a toog di def lu ñorut ngay def ay naafila boo weeru koor bi jeexee loo mën ci koori ngàtt nga koy def cay def ay wirdu di tudd yàlla tudd yàlla yooyu maanaam li ñuy wax zikr naafila la jàng alquran naafila la waaye sarqa it naafil la mooy li wax léegi ci dimbalante ci joxe sa ci yoonu yàlla lépp jox ko fañ ko soxlaa ak ña ko soxla loolu lépp naafil la kon yaakaar naa ne naafil daal ci gàttal mooy lépp lu baax ci yàlla bëgg naafil nag li muy jariñ bari na waaye dana tax ci xadis boo xam ne ñiy tudde xadisul qudsi la nga xam ne maanaami yàlla ko wax yonente bi waxe ko noona am na fu muy wax ne ab jaam day bu ma bëggee jege na jaare ci def lima ko sant muy warugar ci moom bu noppee it na na bari ay naafila naafila yooyu bu ko bu ko ci dee boole di ko ca boole boole ko farata yi dana dem ba jege ma lool ba mujj lépp lu mu bëgg ci man ma defal ko ko lépp lu jublu ma ànd ci ak moom loolu nag yaakaar na ne ci la julli ji di rawante loolu moo tax nit ñu baax ñi bëggal yiw nit ñi tax ñu leen di woo ci ñuy def yu baax yooyu deen woo deen defloo yu baree bari yoo xam ne du bokk ak farata yi ngir bëgg rek seeni tuyaaba yokk kon yaakaar na loolu mooy njëriñul naafila